asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw sama sëriñ sëñ Moussa maa ngi lay nuyu di sa jam ak sa jàmm yaram xam nga wax moo indi wax lii wax ne ni ñuy range ci Touba ngir naan ak togg noonu la nit di range ndox ci Touba ngir sang man damay wax ni bokk na ci bi mu gën a jaaxal jalgati gi ñuy jalgati sharia nit bu génnee àddina ay bokkam ñoo ko war a sang maanaam nit dee fi ci gàndigaal nga jël ko yóbbu jox ko ñoo xam ne xamoo leen xamuñu la xamuñu sax nii bi kii mooy kan fu mu dëkk nu tudd est-ce que charia loolu la santaane maanaam ñàkk sutura gi ñu ñàkkal sutura taalibe yi nga xam ne man ngaa nekk sa kër gi yàlla di la sànq sutura ba nga génn àddina ñu yóbbu la Tuubaa nga fekk fa ku nekkoon ca Tambacounda tox si Tuubaa wala ku nekkoon ca Jolof la tox si Tuubaa nga ñëw ak sa baay rek ne ko am sama baay dee na sangal ma ko est-ce que yow nangu nga jàmbur futti sa baay ci pays bi lan moo tax ñuy respecté suñu kilifa yi te bu génnee àddina dootuñu leen respecté nit su génnee àddina bokki boppam ay moroomam ña bokkoon nag moom mu gudd ñoom ñoo ko xamal lépp ñoo ko war a sang waaye bokkul ci sariya sa baay dee wala sa ndey dee nga dem jox ko jaamur boo xam ne xamu ko xamu la mu doy la ci man de koo xam ne bi saa baay dund doyoo ma bu dee eh, doy loowu ma la ci waaye loolu ba tey murit seen waajur yi bu ñu génnee àddina waaw ñàkk teggil seen waajur bu ñu génnee àddina moom la ñuy def mag man naa dund dundaale lu ne ba génn àddina te kan du ko xam waaye boo ko joxee maasam ñamu yaroon dooloon bokk moom ñoom mbubb mu gudd bokkoon daara ñoom mën nañ ko futti sangu ko ci sutura sàngal la sab niiw nga dem yóbbu waaye gars bu ñu deewee rek day mel ni da leen di lakk noonu lañ koy corneté def ci kees taaraarararararar fu ngeen déggee ko xamu la nga ne ko loolu man day ñaanuma ko yàlla te man ragaluma damay wax ñëpp di dégg ma génn àddina ñu jël ma yóbbu Tuubaa jox ma ñoo xam ne dañ daan dégg Cheikh Gueye Gandigal waaye mosuñu koo xam ñu di ma futti man ñu suul ma Gandigal moo ma ko gënal ragaluma nag ci li may wax ñu delloo ma ne pays ga sama maam ya dëkkoon samay bokk sang ma suul ma moo ma gënal fuuf ñu jële ma foofa yóbbu ma ba Tuubaa jox ma jaambur yoo xam ne xamuñu ma xamuma leen fiquñu lenn ñu dama futti di ma sàng kon sëriñ si war ngeen a mën a may nit ñi nuy waajale seeni niiw ci seeni kër ba noppi andi ngeen julleen leen bu ngeen leen doyee ndax kat jullee néew ko gën a jege néew ba moo ci ëpp responsabilité bu ngeen leen doyee ngeen julleen leen bu ngeen leen doyul sax ñu jileel seen bopp suul war ngeen a mën a organiser war ngeen a man lu ma damay dégg nit ñi di wax loo xam ne bokkuma ak ñoom ci war ngeen a mën a organiser Touba organiser boo xam ne mu kàllaf mu fi génnati andi leen ñu dem suur rek waaye yóbbu yóbbu ca ranga niw ya di rang sang gate di gàtt gàtt yi yonent bi nee na bu leen métier woo gase bàmmel bu leen métier woo sang sangaani bu leen métti woon ñëwaani càngaay ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñoom bu ñu xëyee amuñu xaalis dañuy wax ne tey neexul te bu neexee sama xeet wi jax tàkk ndax ñëppay deewandoo nañuy suturaal doomu aadama yi ci seen ak dund suturaal leen ci bu ñu deewee man de wax dëgg yàlla maa ngi ko wax ñëpp di ko dégg waa Mbàkke waa Mbusoo bi ak Njaxateeg dégg leen ma man d'accorduma ci kilifa gu ne ci këram ba génn àddina ñu yenu ko yóbbu Tuubaa jox koy jaambur nga xam ne dañ naan kii ku mu ñu ne kii di mooy diw nga ñu nga ci koog say waajur dem ñuy sang ka belti beltee ka laññi laññi man d'accord ma ci loolu mhm. te Serigne Touba mu dee ni moo digle nañ suuli Touba it gannaaw bi mu fi jógee la waaye bi mu fi nekk daawuñ fa suul yi jaari lañ daan suul ñi di di suul sax seeni dëkk man sama sama maam ji njëkk a génn àddina te bokkoon ci ñu demoon ci Serigne Touba di jëbbalu ji muy maam Babacar Sëñ Tuubaa dafa joxe digal ne nañ ko suul ne ba ca taatu gi gis ga sa Mustafaa Mbàkke joxe ab tuuti dara bu gudd ba si suuf joxe bi tëlëb limon limin ne bu ngeen demee yenn ngeen ko suul foofa ca taatu gi gis ga kum fa fekk te gëm yàlla yàlla man na koo baax mu rammu la nga dem aljanna ku ko fa fekk te gëm yàlla it mën na laa rammu waa man ne niw buñ suul Cheikh Moustapha ne fa fekk te gëm yàlla mën na laa rammu ku ko fa fekk te gëm yàlla mën na laa rammu ak fas lañ fay yeew ñu repas ja kenn nekkatu fa ku dee ñu yóbbu Tuubaa man su ma deewoon foofu bu ma kenn yóbbu nañ ma yóbbu foofu sax Mustafaa waxoon ma fa suul doy na ma fa mën a suul daf doy te li tax Mustafaa Mbàkke alkarim wax doy na ma fañ suul bu bëm ma suul fa taalibeem ba mu ne ku mu fa fekk te nga gëm yàlla dina la ramm ku ko fekk te gëm yàlla mu ramm na man bëgg naa ko ma ramm bu ma fa yóbbu ma jël waaye affaire da ngeen koo dangal a dangal exagéré ko exagéré ban mbir mi kenn mënatu ko du jënti léegi te da ngeen ci génn nag ba Touba nañ toog rek ba ba Sénégal nekk deux cent million trois cent millions su ngeen manee am <laughs> benn armel dana wóor bu ñu demee ba Touba nekk deux cent millions ba Sénégal nekk deux cent millions de personnes trois cent millions de personnes su ngeen mënee gëngale nit ñi ci benn armel dina wóor ah xanaa ngeen dem def ko xel koom tudde ko Touba waaye foofu yëpp la gaa organisé bi war nañ koo seetaat de ndax àddina day dox waaw xam nga sama sëriñ lu bari ñii dañ ko seetantal ñii buñ ko seetantalee duñ ko ñemee wax man sax waxuma ci ku dem yóbbu Tuubaa gi loolu mën naa nekk waaye ku yóbbu Tuubaa sa kilifa bàyyi ko ki jaambur yoo xamut man moom laa mun te d'accord islam d'accord ci lool sariya da duñ ko jalgati sariya li mu wax mooy nit bu génnee àddina ay bokki jege ñaaleem ñoo ko war a waajal waaye yow koo xam ne ko moom dara xamoo ko guddi xamoo ko bëccëg ah nga sa bàyyi dee nga yéen ko yóbbu ko rek eh, fekk fa ñu taxaw tax seen dëgg rek ana niw ana niw nga ne niw yaa ah, man loolu d'accord ma ci dama cee d'accord maanaam man sama taalibe moom lii ànduma ci da cee bokk lii ànduma ci moom dama koy wax ni Omar Laan waxee ne lii ànduma ci noonu laay waxee lii ndegam yonent bi ak saxaaba yi ñu daan réunion di jiyoo sàkkantuma nag ku dul yonent bi waaye mbooloo bu fekkee yow rek dañu ndigal la def ko na nga ndigal la na nga ko def te am na ci ndigal yoo xam sax du ndigal ko def seen bopp rek ndigal la boo dikkee fayal nangam ak nangam ak nangam bàyyi noog sab niiw ba ndigal la boo dikkee fayal nangam ak nangam ak nangam bàyyi noog sab niiw ah da nga leen téeméer nit ak lu topp ñaar téeméer ak lu topp ah bu ci boolee nag ndox mu ñàkk am fa te nit nag yàlla ab secret ci nekk de day niw yi comme mbaam taw nag ba nit na fa dellu nii te ah musiba la de te loolu ngay gis ñàkk organisation moom moom moo ko yilli jar na fa ñu sangeen yow ñu def fa seen situdoo bopp boo xam ne dañ ko solo ndox ba mu fees mu nekk réserve boo xam ne robinet mën naa tëj ndox ma continué fa waaye robinet yi tëji yendu ba jant bi su ngeen di niw teg ko foofu loolu moom du xalaat nit ñu nag jot ñu setantal am na sama mel ne mbokkam taalibi kooku bàyyi la ci man ku jàmbaare ci lislaam la koo xam ne mus la tàggoo ak maraxib di ko jàng suba ak ngoon taalibe fili mu génn àddina ci waxtu tàkkusaan ñu war ko yóbbu Tuubaa ñu ne dañuy dëgg ba quatre heures yi fajar ñu départ ànd ak sedd bi yóbbu ko ca dëkk ba ñu nekkoon ñu nii def ñee nañ dem ci usine glace ñu dem usine glace jënd ñeenti saaku cinquante kilo ba mu fees ak garaasu konkaas googu xam nga ay doomam duñ ko mën a def wallahi al azim ñun ñoo koy jàppoo génne teg ci perong bi sotti glace sotti glace ba kees gi digg ko teg ci ko glace googu sottiwaat glace ba mu fees ci kawam ñu waan googu seey seey seey wala ngaana wala ngaana wala ndax xam nga nit nit dafa am aw tàngoor wala ngaana wala ngaana wala ngaan ba wàññeeku ñu dikkaat jàppoowaat ko teg fële yokk glace gi ci suuf sottiwaat glace tëj bu nee bay dem saaku glace yaa ngi tege di bu nee bay dem ñu dellu renforcer glace gi door départ ak moom nag uti Touba lépp mag naan waa lii lépp day bu Touba rek tax di ko def di glacé nit comme aw gerte ji di sotti glacé ka sottiwaat di sotti glacé ka sottiwaat ndax yow ki soo ko bàyyi day neebi te mënoo ko yàq ñàkk yóbbu te doonoo docteur ba mën ko autopsie ndax docteur yi moom bu dee Angleterre wala France dañuy autopsie nit ki autopsie mooy lan dindi luy moom lépp bu ab ab ab lay doon yulli ba mu set yi nga xam ne mën naa gaaw a euh, niwi ñawaat ko la xottu nit ki mu du gaddi noonu biir bi la lu ci ne noonu la ko tubaab yi defee ci bitim réew ñëw ko ndi la gejj nit ki waaye bagage yi ndax yoo fa fii nag wax dëgg yàlla jarul ñuy autopsie nit pour bañ jur ba neewi te lépp ngay gis ah nañ dem rek bu yàggee danañ seet aw aw doxalin bu yàggee du ñàkk luñ soppi de waaye man de wax dëgg yàlla keroog xool naa bàgg ma ne lii de bu doon sama bàyyi la damay lànk nag damay taxaw ne lii nag moom déedéet sotti glace ba mu digg ma sotti ma teg bàyyi sotti glace ba mu fees glace ga seey ma dellu di yëkkati bàyyi teg ci peron bi sotti waat ba mu digg ma dellu sotti ma teg ci bàyyi sotti waat glace ba mu fees waaye dëgg dëgg dëgg dëgg loolu tortiller sa bàyyi la fekk dee ba noppi dee na waar asalaamaaleykum <clears throat> wa taala wa barakaatuhu waaw sëriñ abo ñu ngi lay laaj sa jàmm sa jàmm yaram ñaan yàlla suñu kàddu fekk rek ci jàmm maanaam euh, li ma li may leeral mooy niiw ci boppam ay bokkam ñoo ko war a sang ba noppi indi ko buñ ko tëlee sang ñoom ci seen bopp buñ ko sangaloo keneen kooka sañ naa taxaw ne nañ ma fay waaye buñ ko mënee sang ñoom ci seen bopp ñoo koy sangal seen bopp indi ko loolu loolu laa wax waaye loolu senegal yi ñoom xamuñu ko xamuñu ne mën ngaa waajali sa kër sab niiw sàng ba suul doo nga def sàng ba suul doo nga def nga xam ne boo ñëwee dañ lay jullil rek nga dem suul yi te loolu dafa war a mën a nekk mënees naa sange nit ca këram sànge ko fa defar ko ba suul jot bu dee da ngay suuli Tuubaa nag nga yenu dem Tuubaa boo demee ñu la sulal fi nga suul ko fa waaye am na ci yoo xam ne man dama koo gis man gis naa fi nit koo xam ne dafa génn àddina te ndeysaan dafa demoon toolam bay ñibbisi rek station daaneel ko ci yoon wi fekk daa sangoo ca tool ba ba noppi ne maa ngi dem nag julli ji ca jàkka ja ca dëkk ba yoon yu muy jaar nag da di wenn yoon wu sew woo xam ne daanaka moom rek a fay jaar di dem toolam waaye du yoonu saret du yoonu oto yoonu tànk la station ba daane ko foofa mu daanu fa jaaxaan fa tëddu fatt gisul nit fatt googee yóbbu ko àlaaxira mu toog bàyyi tàkkusaan jot doom ji gisu ko mu ne xaar ma dem seeti sama bàyyi ndax moom ca tollu màngo ba la nekk booba ba léegi bi mu ñëwee ci yoon wi fekk bàyyam jaaxaan ndeke dee na fa ca onze heures midi noonu mu solee caayam jooju ak forogam boobu noonu lañ ko fabi indi dugal ci mor morgo bi noonu lañ ko jëlee nokkos ko noonu ci kees daldi wuti tubaa nga xam ne moom jotoon naa ni ba giño gi dañ koo dagg euh, waxuma dara waaye situation ya fay nekk ay may ma tëbay jéeg may ma léeg maanaam foofu da ngay xool ba yàgg nga ne non ñi dañuy fonto nit ñi dañ koo miin mais am na yoo xam ne da ngay doy na waar daal di gën a gàtt waaw lu sàng daal lu ma laan jot te lu ne fàng kenn du ko jeex ñun dañuy ñëw di fekke te xam nañ li li ñuy fekke naka la demee mu kàllaf moo xam ne daanaka dëkk ba mu dëkk moo ko war a moom nga ñëw indi ko ay jaambur di dagg ay giñoom di ko futti loolu du yoon maanaam nit ñi ñoo war a xamal seen bopp ne nit ki sañ naa sang ba mu set sang dooru yóbbu loolu mooy yoon nit ki sax sañ naa taxaw imposé ne diwa may jullee wala diwa may jullee saa baay wala maa koy jullee saa bopp personnellement nit ki am na sañ-sañ boobu waaye fii ci senegal dañoo yaakaar ne diine ci ni ko fi doxalee am na ci yoo xam ne jaarul ci yoon man am naa sama jarbaat boo xam ne ñàkkul ne mi ci groupe bi waaye tantam la xawma ndax tantam jooju sama <laughs> sama mag la am na daal ku ñu génn la àddina yi bu ko Tuubaa di ko fa suuli julleekat ba ñëwoon moo koy jullee yéex a ñëw yéex a ñëw ñu xaar ko ba ñëwut ñu jullee ba noppi koo ko ñëwaat ndax am bu ko bàyyoon mu jullee itam dara nekku ca waaye ñàkk pal gi ñu ñàkk pal ak yàgg ko fa nit ñi yàgg Euh, ñi bëgg fa continuer ti jëmale ti ilaay ajal ni musamman yaakaar naa ne juujow na ca ñoom ba ne leen jullee gi def nañ ko ba noppi kenn du ko defaat dañuy suuli waaye nit ki itam am na ci fulla joo xam ne yaa koy yaa koy jox sa bopp yoonu Sëriñ Tuubaa yi taalibe yëpp ñoo ci bokk ak iran seen ngëm moo leen ci bàyyi leneen bàyyiwu leen waaye ñoom itam dafa am yoo xam ne ñoo ko di jël seen bopp responsabilité te diñ ko jël man de xam naa ne ñu ñu suul ma njaarim sax ma gënal ñu suul ma Touba man lu leer laay wax njaarim googu suñ tuubaa njëkk di suul yi nii wam daal ñu suul ma fi sax man bu ma ko amee moo ma gënal ndax fa samay bokk ne ñoo may wër liñ da lu ñu war a def ci man lépp ñoo ko cay def loolu ah war naa mën a nekk ñaareel ba itam am na yu bari yoo xam ne jarul sax wax man am naa mbokk moo xam ne ba mu génne àddina ñu sang ko ba noppi ba ngàbb ko di génnee dañoo ñëw nañu delloo leen ko ci biir ma ne lu tax ñu delloo leen ko ci biir ndax sëñ bi koy sëñ jullee ñëwagul te ñu ki taxaw bëgg a teg dag ñu teg di sang ne delloo leen ko ci biir ma ne kenn du ko delloo di ko teg ci suuf nañ koy bu sa jullikaay bañ koy bu sa teg ko ñu ne suñ baa nga dee nit ñi di toog ak a taxaw ak a cokkastiku bu ma jóg ci biir julleekaay bi ci jurbel ñoom waa jurbel déggoon nañ ma keroog ma ne leen ku am soxla doxi ko ku munta continuer ci toogaay bi demal nga toog ci ker yi ba sëriñ ba ñëw sëriñ bi jóge Dakar yu ñëw fii te fukki limaan a ngi ci biir dëkk bi nan ko toog xaar ba mu ñëw ñu toog ne moom la ñuy xaar toog moom lañuy xaar toog ba nit ñi ne la waka yeewu sëñ bi door yëg si ba mu ñëwee newul bismillaay newul dafa leen sàppe yi waxul dara waxut ak mbokki ci dee laajul ndax am na borom déet laaju gu koy gàddu daa ñoom bu rek xuus dikk rek taxaw allah kubar allah kubar ñii di ñëw di dugg ñii di yëguñu li ñu bala ñu ko jullee nañ ko ba noppi doom ji sax keroog dafa jooy ne sa baay liñ ko def nii man ko sa baay daa jox sa bopp daa jox boppam sëriñ boo xam ne bàyyam école français la ko jàngal loolu kese la sant wi rek ko ci boole waaye li sëriñ bi def nii tegu ko ci yoon keroog ñëpp a jaaxle ci niñ ko xaaree lu bëgg a trois heures de temps daanaka mu dikk gaare otoom rek ak ay mu wàcc jubal ci biir mbaar bi ñuy jullee xaatar xaatar xaatar egg rek tiim ko rek ne allah kubar nii parler nii rien yooyu dañ ko war a bàyyi yooyu yëpp ngay gis yi ñu war a bàyyi la doon ab sëriñ du tee jaar ci shariatul islamiya waaye keroog genn wàllu ñu ñi julliwuñu ndax daa ñëw gaare wàcc rek waaxu jubali néew ba mel ni gaynde gu wuti ab bukki dafa yegg rek daal di allah akubar allah akubar allah akubar allah jël leen suuri te suuru te niiw duñ ko jullee noonu niiw bu deewee ñu sangu ko sangu ko sangu ko yëmb la dee ca deux heures dégg nga maam ñu ne yaa koy jullee niiw bi dikk na fanaan na yendu na ba une heure jotaat nga nekk fa nga nekk mais nit mu ne su ko sang nag sang ko teg ko noonu rek mu ne dàng dàngaaral ñu jëmale ko mi am na daal sëñ abo yoo xam ne ah, xam naa ne du ci sëriñ si ci nun la waaye taalib war nañoo am ak yeewu ci yenn boo amee sab niiw yóbbu ko daal ah, yow mi yow mi am sab niiw mënoo koo jullee yow personnellement sa mankaa ngi tàmbalee ci nga yóbbu sab niiw mënoo koo jullee sa mankaa ngi tàmbalee ci nga yóbbu sab niiw amoo kenn ku la jegeñ ku ko mën a jullee sa mankaa ngi tàmbalee ci nga yóbbu sa néew am ko ko mën a julee ngay xaar ko nekk ci kusaanaar ñu ne dañ fi yendu tëdd yi nelaw ak a yeewu tëral néew bi di ko xaar bari na yoo xam ne daal mi ngi xew ci yoonu yoo xam ne yu jar a changé la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah, sëñ Abu maa ngi lay nii di laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram xam nga man ah, fi may waxe du ñëpp ñoo koy xam comme ni nga ko xamee dëkk bu dëkkab murit bu mat téeméeri buntu kër mbaa juróom fukki buntu kër di ay bokki neen nit faatu fa ñu ne dañ ko yenu ba Tuubaa sangkat yee sangu ko ñoom ñooñu xanaa mënuñoo sangu janaaba te sangu janaaba ak sangu sedd ak ak sang ñoo niroo ñaareel bi li li nga xam ne yow yaa ngi ko dëkkee di ko def abadan bu sa mbokk génnee àddina da ko ko munta defal yow mi mbokk mi jegeem ko man li may wax bokkut ak nit ñi di wax de ni ngay yëkkati sa mbokk dem jox ko jaambur mu di ko futti di sang lu tee nga sangu ko ci sa kër loolu laa wax waa Tuubaa newuñu bu kenn sang sa niw doon ko indi waxuñu loolu dégguma ko fa boog bu kenn sang sa niw doon ko indi dégguma ko fa waaye man ñi may waxal mooy ñi yow nga am nit ki am baayam bu dem ba juróom-ñaar fukki at juróom-ñetti fukki at mu génn àddina ay moroomam nekk ca dëkk ba ñu laxas ko noonu yóbbu ko Tuubaa teg ne ay jàmbur kaa leen sangu ko waa dëkk ba dañoo mënta sangu taariku a bi xayri usrin uqila yuxtalu addan duuna kufrin fa aqila Sëñ Tuubaa loolu wax ci sangu set te sangu set ak sangu néew ñoo bokk niroo xanaa am dëkk la mën a duñ mën a dajaloo ñoom ñëpp ku lee ñu yóbbu ay cent kilomètres ne nañ ko sange ji foofa maanaam ñàkk sutura gi mu am yooyu ci sa kilifa goo xam ne dafa génnoon àddina tey masalan nit koo xam ne kilifam dafa génn àddina ay moroomi baayam nekk ci dëkk ba di ay jullit ñu moroomonte ci lépp lan moo tee ñu ko sangu ko ba mu jekk ba dem rek des waaye dañuy dem ci baa jox ko ñoo xam ne xamuñu leen man waxuma sëñ bee ko fi taaj ak ma man bu ma deewee na ma samay bokk sang ba noppi tur maayu buloo laa ah, d'accord ma ci leneen léeg-léeg nga dégg ñu naan damm nañ bëñ baag wekki nañ wekki nañ man defa nga ne sama doom dina ma sang dam ma sama bañ déedéet du ko def lan moo tax nit ñi mënuñuy sang ci seen kër yi ba noppi sang ba mu jekk ñu dem yóbbu teg ne sang nañ ko sang nañ ko mu ngi nii sëñ bi julleel ñu def suuli loolu moo gën a gaaw buñ ko doon def est-ce nekk foofu di rang di rang sang duñ sang duñ rang duñ rang sang boo dikkee fekk ñu tegale fukki nit ak nangam wala wala juróomi nit ñu ne lu ñuy xaar sang lu tax sangu leen ko ci seen kër maanaam yoonu mu dafa egg foo xam ne il faut nag ñi teg nit ñi ci lu noppal luy noppal nit ñi l'essentiel ka nag ka fa def ka def loolu métier nga xam ne moom ca la aj ab dépense kooku yonent bi da ko ne bul ko def métier ñu ne lu tax mu ne ndax bu sa bu sa surne neexee sama xeet jeex ah yonent bi lu wér la wax bu leen def métier gas yi bàmmeel bu leen def métier sangi néew bu leen def métier ñawaani càngaay ñu ne lu tax mu ne ndax ñooñu bu ñu xëyee dañuy wax ne tey day as lu mu neex neex dañ naan te moom bu neexut baaxut ci ñoom su neexee askan wi day jeex moo tax mu ne mu ne fu ñu toll naan neexut te bu neexee sama xeet jeex kon nag bu leen ko météo maanaam dangay ngay seet boo xëyee dem eh, di sang ñu di la fay ba ngoon amoo niiw yu bari da nga naan tey de sama surne neexut gis kan boo aye woon boo aye woon mu neex de waaye doo ko fekke bu fekkoon yaa ayee dee ji bis boobu noonu nag du neex waaye doo ko fekkee dafa yoo xam ne ah man de sama murit moom dëgg yàlla am na yoo xam ne moom ci sama jàng ko dee di teg waaye duma ko teg ci nañax nañax yi rek di dem man daal li ma gënaloon mooy murit yi ku ci amati kilifa goo xam ne sa waajur la mu am ay maasam ami bokki doomi ndeyam ay doomi baayam ay jege ñaaleem su génnee àddina na ngeen ko sang ba mu set sang ko ba jullee des su ngeen dikkee tegal sëñ bi ñu jullee su fekkee ni nag mënu leen ko ngeen dem yóbbu ko ci kër sëñ ba sangaguñ ko lu tax sangu leen ko nga ne dañoo mun a sangam néew sëñ bi daa war a taal otoom ànd ak yéen dem ca dëkk ba toog fa di leen jàngal sangu janaaba ba ngeen man ko ndax Sëñ Tuubaa neen ko bàyyi eh, te amoo ngant lu dul ko rek dañ lay rey loo xam ne ko bàyyi ñu rey la waaye man ne des koo war a man diine ji nañ ko def ci profonde bi nañu jël responsabilité bi décentraliser ko ci nit ñi waaw léeg-léeg gaa ñu bàyyi soxna soxna si am juróom-ñaar fukki at ñu mur ko taaj ne dañ koy jàngal ñàpp ma ne kon kii mustoon a jàpp mustoon sangu waaw kii kon fu mu jëm ci àddina jëkkëram ja daa dee fan la jëm noo yore ba génn àddina ñu taaj ko di ko jàngalam njàpp yow mi nga xam ne yaa génn àddina ñu yenu la cent kilomètres yóbbu la foofa di ko di woo ay nit di sang dëkk ba nga juddoo dëkk fa ba am fa juróom ñetti fukki at da ngeen ne mu tasangu janaaba loolu du dara loolu du dara ñi koy def nag pour def ko métier moom loolu leen arrangé waaye loolu moom Cheikh ànd ci man daal li ma ànd mooy ku dee nañ la sang ci sa dëkk sang ci say bokk say bokk sangal seen bopp sutura sa yem ca ñoom yonent yàlla Muhammad bu mu génnee àddina Abbas la xaw ma ak Ali ñoo ko sang sang moom sa mbokk mu la jege moo koy def loolu du caagee nag sëñ bi ko fi teg sëñ bi tegu ko fi loolu amul ci charia islamiya sang sa mbokk mu la jege moo koy def dégg sa mbokk mu la jege moo koy def sang sa mbokk mu la jege moo koy def sang sa mbokk mu la jege moo koy def buñ la sangee sang ba noppi nag suul ñëpp mën nañ koo def man daal loolu laa nangu te loolu laa gëm dëkk boo ci xam ne nag nit dee na fa ñu yenu ko yóbbu Touba ngir tëlee sang moom buñ eggee bu buñ ko suulee ba noppi na sëñ bi topp ci ñoom ñëw ci rëkk bi toog fi jàngal leen sangoo ba ñu mën ko ndax sëñ Bàmba nee na ko ko mënut te amoo ngante lu weesu jàngoo ko yoxtelu addan doona kufrin faqila man murit googu laa xam muritug àlluba muritug mbinri muritug marja iya lii fii ma wax lii fii laa ko teg man noonu laa mën a nekkee ak murid waaye mënu ko dañaxu rek Cheikh Gueye mënul loolu ñàkk bokk gisit nag taxute taxute ñàkk gëm maanaam Sëñ Bàmba moom fekk yaa ngi sës say wax ci waxam di indi ay dalaa il moom kenn mënu génne ci ñi ñi ñi ko topp ndax imam Malik noonu dong lañ def imam Malik jébbaluñ ci moom du suñ waaye dañ ko def marja diini di delloo suñuy àtte ci moom suñ Tuubaa bu noppi woon bañ a wax bañ a bind nga ne ndax Sëriñ Tuubaa lépp loo bëgg xam ci lislaam bind na ko lépp loo bëgg a xam ci charia islamienne di nga ko fekk ci téeréem yi waaye nag la yàlla xam doy na man moom xàmmi ndigal ak ndugal ràññee naa ko bu baax waaw loo tëral te muy intérêt yi nit ñi te fekk na juyoon ak charia islamienne boo demee ca téeréb sëriñ ba doo ko fa fekk yoonu mu ñaataa ci nekk yoo xam ne amul bayit laa marji alaha kenn mënu koo layal du ci jeex waaye nag ay tuubeen lañu comme ni ko Baye Moustapha gi daan waxee rek sir ma ne yàlla yaatu na waaye nag war nañoo jiima góorlu nag ci dellu ci mbindam sëriñ bi settantal ko mbindam sëriñ bi moom lenn rek la gaa yi nangu nga dellu ci ba mu waree fas wa jóge Touba ba demee Mbàkke Kajoor ba mu waree fas wa jóge Touba ba mu demee Ceen Jolof ba ko tubaab ba woowee ba mu yónnee maam Cerno Biraay Mbàkke ba mu demee ca ba ca Ndar ko wax ba muy ñibbi si gëlëm ñëw ci yoon wi nangam ak i nangam ba mu waraatee fas wa ne saabu bu saabu bu bari ak fóotkat bu mag moo mën a fóot tilim ci ba mu dajeeg ñoom jeewal ba waa ba waa loolu la nit ñi bëgg di wax Sëñ Tuubaa loolu indi ko fi woon li ko taxoon di wax yaa ahlal barri yaa ahl yaa ahlal barri yaa ahlal bahri ujooli barri bari saqaayi du loolu karamatul awliya ku egg ci yàlla dëgg am yu bari moo koy am waaye sa maqaama yi neen yooyu rekk ñun di teeluñu maanaam li nga nu woo trancel nu ko bind ko mu di taw doxalin nga xam ne mën nañ ko yóbbu fii ba Pakistan mën nañ ko yóbbu ba Inde fu nu mën a yóbbu murit teg ko ci ngir dem Sëñ Tuubaa lu leer lay doon loo xam ne dalil lay am bu kenn munte di li ci masabul Maalik yi foofu lañ war a teg suñu bopp foofu lañu war a teg suñu bopp rasul irada looloo ko tax a jóg rasul irada du ab tarixa mboolooy taalibey murit ñoo ko bokk def waaye boo gisee man may waxe nii rasul irada looloo ko tax a jóg xuraasul iraada ñu bëgg mooy kenn du dem ca penc ma rek de gis waa ju ñàkk dépense muy tel tel yi di wax lu ko neex nit ñi di waxoo ko daanuy gàngir yi fab seen alal di ko jox bu demee ne dof ya naxati naa leen jaaxaanti raay biiram ñu ñëw dañu wax seen bàmba lislaam ji mënu jàngal ci téere yi ñu jàngal ko nit ñi man bu teen maa dégg jàng benn xanaa lu ma fi jàngalee gun ba xanaa tasawut di sixaar jàngale wu ma jaww ar nafis jàngale wu ci tawi di sori jàngale wu ma xaaliqu niiraan <laughs> ma fàttiwul ci naan jàngale ma yooyu yëpp ndax man ni ma ko déggee man cee génne ay aaya ki addis teg ko ci keneen nit ñi ci taabal ji su ma ko defee amuri di mer te man du ma dural Sëñ tubaab di wax lu dul dëgg pour lu neex ma Samba ma Demba Samba Sugum Gay loolu du ko def su ma ko naree def ma toog jàpp sama njàmbur man bu ma delloo sama kër gi tëj ko it murit laay doon ba ba may dee Sëñ Bamba baalu ma lu ma yut si foofu di leen ko laaj xanaa lu ma leen yot ak siyaar ko ak ñaanal samay waajur waaye lépp loo xam ne war na ma su ma ko mënoon damaa naaw fi roplaan dem dëkk Amérique dootu leen ma gisati ba ba may de te suñuy dajee yowmal xiyaam ca biir murit lay bokk Sëñ Tuubaa noonu la wootee Abdou Xaadir Jilaani nga ca Baxdaad ay xaadir am nañ Sénégal duñ fa mas a teg seen tànk te ay xaadir lañu yaa ngi dégg imaamul Junayd dégg nga ca Baxdaad Sarayini sax téye nga ca Baxdaad dégg nga imaam Ahmad Rifaay yi ma nga ubba Umm Ubayda Sarama yi ma nga Faas ca Marok seen keneen keneen nga feneen keneen nga feneen Sëriñ Tuubaa tër bi mu tër dafa mën a nekk universel feek ñi ngi ko teg ci mbindam te bàyyi suñ bànneexi bopp waaye nag nit ñi ba léegi xamaguñ ne Sëriñ Tuubaa de maanaam tasawuf gi mu indi tasawufun saafin la li tax duma ci génn mukk mooy tasawuf gi mu indi tasawufun saafin la te nag ci ci ci Amar Difaay rek laa gis ñu niroo ay ay ay ay ay ay waxin tasawufun saafin la Sëriñ Tuubaa indi tasawuf gu ñu set lay ba mu set wicc la indi malgré nag am na ñu nekk ci biir yoon bi di def loo xam ne bu del siwaatoon tey ngàdd ngàbb kurusam ga kaalam ga jàkkaarloog ñoom dina leen wax ne lii yéen a ngi ko def man santuma leen ko ndax wér na ma ne amut maslaa ci ndigalal yàlla ak yonent bi ñu di ko jalgati Sëriñ Tuubaa amul laa ci loolu li ma daan wax Mbaye Gueye ba mujj mu naa ma yow aw ma ne ko ab taas laa bëggul ci Sëñ Tuubaa ab taas ab tomb bu ñuul laa bëggut xili mi nekk ceeka ceeka yooyu laa munta dégg Sëñ Bamba jooyootu yonent bi ci dara kon nit ñi dañoo war a ànd ak moom ci li mu woote te bàyyi suñ tappale yi nit ñi dañoo bari ay tappale li leen yitteel daal mooy toggoo lekkoo coowoo solu sumeku jaxasoo cooli jàpp ko jàpp bënd bi loolu loolu fekk ñu ngi koy wootee murid gi murid gi du dem fenn Sénégal gii ndax da ndax da da ngay egg foo xam ne du du du tas mun te tas masalikul jinaan bu ko mur ji jàppee firi ko tas ko dëgg ci seen tànk comme ni salaf si def ci eh, ci ci ci niñ koy waxee ci eh, lan nawawi ya mooy téere mooy téere imaam nawawi bi rek yaa ngi dégg ni mu ko defee buñ ko defee noonu nit ñi ci àddina bi danañ seet ne murid yi kat yor nañ système bu normal non violence woote ci jàmm ak salaam woote ci xam-xam inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan qadiman wal mu'aymini shaahidu bu leen yaakaar ne man mënumaa wax ci Sëñ Tuubaa bu ma neexee ma wax ci waaye dama wir ne li may wax da leen dul neex ginnaaw li ma wax da leen dul neex nag te man ci dalil yi ma péri ping laa koy teg man luy naqari murit yi bëgguma ko kon ma gàddaay di wax ci ñeneen waaye la may wax ci ñoom day dëppoog li Tuubaa doon wax waaye eh, sëñ Abo murid daal war nañu seet nun war nañoo seetaat suñu bopp dafa am loo ci mën a jàmbat ak loo mënul jàmbat waaw am nañoo yaakaar ne diine Touba dong war a ne am nañu ko yaakaar am na ñu wax naan jumaa jenn la Touba la ne kon foo am ak koy jullee waa ma diine nag dama koy dégg murid naan jumaa jenn la Touba la ne jumaa ji bu dee jeen nekk Touba mi ci waat deux milliards de personnes mën nañoo julli si noo Touba dañ ñoo xëj Sénégal xëjuñu Sénégal bay da xëj Touba te deux milliards de personnes moo di moo di jullit yëpp am na wax yoo xam ne euh, amul solo yee nit ñi daal jàngal leen ah man de maa ngi ñaanal suñu sax Mbàkke Gaynde Fatma fu ma toll ba ba may dee ñaanal ko laa dëkk ndax xam naa ne daf maa fekkoon ma nekk gumba mu luqati sa mu luqati samay samay xef ne ma xool ba gis jax ran lii mooy li li war a mën a nekk ab sëriñ soo bëggee am dongo yu libre ci seen bopp yu mën a jaamu yàlla yoloo dul toroxal ci na mbooloo danga nga leen di jàngal diine islaam te bañ leen a jàngal utub xaalis di la indil da nga leen di jàngal diine islam comme ni Sëriñ Seex Mbàkke doon def juróomi téeméeri école ak juróom fukki école la Sëriñ Seex Mbàkke eh, eh, tabaxoon ci réew mi maa ci gën a sob nag fu ñu toll ma dégg ñu di ma dégg may làmmeñ ñu te maa ci gën a gàtt àllu ba maa ci gën a ñàkk waaye nag sama ngëm laay demee ak gëm ne yoon wii mu tëra tracé woon moo di aw yoon wa man nahaakumu an ittaallumi fa nayuhu ila dalalin yantami wa man nahaakumu an ittaallumi fa wa xalifatu laayinil mujrimi suñ tubaa lu leer naññi naññi naññi naññi naññi naññi naññi naññi ni bëccëg lanu ba waaw li sëñ li yonent bi ne taraktukum ala mahajjatin bayda laylu akana ari ala yaxis wana ila ali loolu lañ suñ tubaa bàyyi bi muy dem waaye nag ah ginnaaw bu ma ko doon wax te dëkk Touba léegi ngeen génne ma mbaa ngeen xatal ma ba ma seeti feneen fu ma dëkk bëggu ku wax dëgg gi teen dëndëri gi dox bu leen ko bëggu leen ku leen delloo ci mbindum sëñ Touba ku leen di yëlbuloo ak ay waxuloo rek ngeen bëgg ak di wax loo xam ne lii concerné wu leen lu leen concerné wu rek leen di wax waaw bu ahlu badar wàccee Touba wàccee bu ah, fekk sëñ Touba jeewal lu ci sa yoon da lay tax a dem àjjana ngir ahlu badar wàcce na foofu dafa am yoo xam ne li sëñ bi rëdd ñu war cee jaar loolu man laa gëm rafet iraada nag loolu moo ko tax a jóg du murit gu bees waaye du daayira bu la jëlee xaaj di ko yóbbul kenn nga jaaxal naan tabaarkalla daayira la boo xam ne dañuy jàngale yoonu Serigne Touba ca na ko Serigne Touba bindee te léegi man nañ ko ci nu mu gën a yombe ndax fu ne ay toll mën ngaa wax ak sama moroom di la dégg ñu sëppi jikko yi moytandiku gaay demba dellu ci démb te bàyyi tey mag ñi dañ doon fondement tabax ba egg ñoom pentu rek rafetal dong moo ci ñu tabaxal ngeen di nag peinture ko la bu leen di la daanoo du yaa koy tabaxaat yan yàlla tendu ci jub tendu ci sellal